yan wu diis waaw combat bi nu ngeen ko waajee. waaw ah, ñu koy waaj comme ni ñu daan waajee yeneen combat rek waaw bàyyiwuñu benn benn benn bàyyiwuñu dara ñu ci lu ñu waroon def yëpp waaw ba tey ñu ci lu war waaw. yéen a war. waaw. li leen war mooy bëre Gora Sock mais jékki-jékki nañ dégg seen seen biir ngeen góor Gora Sock daan daa daa daa weer bo parce que dañuy wax ñëpp dañ doon wax ni dafa blessé tey mu confirmé ñëwul ci signature contrat bi loolu da koy dëggal yow. waaw mooy bu ñu lay jiñ dëmm ngay socco weewu liir rek bu ñu lay jiñ dëmm fekk la ngay socco weewu liir kenn mënu laa mënu laa maanaam kenn mënu laa sesetal daal maa ba nga set. waaw moom looloo ko daal moom ba ba ba fi sa baal taxawee ne daa blessé waroon na mën a ñëw taxaw tey dëggal boppam wan amateur yi ne dara daluma. ci ku bëgg bëre quoi ci li ma jàpp. est-ce que moom moo war a wax blessure Gora Sock. waaw peut-être erreur de communication la rek waaw mais ak lu mënti xew daal mu ngi koy ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal wér ba dimanche ak jàmm bu demaloo ñu ngir yàlla ñëw esaat ñu bëre. bu ñëwul bu ñëwul. waaw mais daa blessé blessure bi ñox dëgg la léegi lan ngeen fa yéene de. la si mën dañuy xaar rek mënuñu si dara waaw ndogalu yàlla saa yu wéree ñëw ñu daan ko waaw. jaar borom TV borom suma tànta ñu lay bëggee waaw man la Papis ñu naan ko Pilok waaw jëm ngeen ci bis bu rëy de góor a sax ngeen laal de mbaar mbaar nag euh, dañu min bis bu rëy ndax ku xam Fils de Balla xam ne combat am yëpp ay combat jànq la combat am yëpp ay combat choc la ndax Fils de Balla mës ta jël adversaire rek ñu ne tey mu dee ku mu jël rek Sénégal yëpp dañuy maase ne waru ko woon jël moo ko ëpp doole moo ko mën te wax dëgg na yàlla nag ñun loolu ñu ngi koy bëgg a mis ku am quatorze combats douze victoire kooku xam nga mis na loolu. waaw ñu ngi koy waajal bu baax ak sunu mbokk yëpp te di ci woo sëñ Moussa Nawel bu baax ak sëñ Mot Seye sëñ Xaadim Mbàkke borom Nawel di leen ci woo bu baax a baax a baax. yow mu bokkoo ñuy wax Gora Sock daa blessé du wul xam nga léegi lamb ji day bëgg a yàqu ndax mbëri dañu commencé commençant par les VIP wàcc ci suuf mbëri dañu commencé tàmm tapale. te loolu day yàq làmba mbër yi bu fekkee dañu bëgg def lii seen gagne bëgg ci réussir dañ koy fulal dañ koy fayda ku ne xam na ne làmb dafa nekk ci pant ku ne xam na ne làmb dafa nekk ci ay difficulté mbër yëpp a ànd maase seen ndigg ku ci am combat def ci lii ci war ba làmb nekk fa dellu fa mu nekkoon ñu bàyyi tappale bi bàyyi te da ngay gis ku mbër bu ci préparé combat ba mu des une semaine sax dem ci sa benn sëriñ bu cuune mu ne la làmb ji leeru sax nga commencé indi ay ay affaire mais loolu du làmb làmb euh, daanu la ak daan te bu ci mun mënti am tamit sa lamb day continuer Gora Sock na waajal de dimanche te xam ne dimanche par A ou par B day bëre. dina bëre de buñ koy fekk parcelle sax dina bëre ndax ñun fi ñu toll nii amuñu jotu xaar ku ne xam na ne géej waaye dafa nekk ci ay jafe-jafe te ku ne xam na ne Fils de Balla moo tijji saison bi tijji kook ndam lu rëy magam ñëw topp ci indi ay jafe-jafe ñoom guy geek ñoom Balla ñëpp nekk ci ay jafe-jafe mu war a ñëw relever waat loolu mayaat leen confiance géej waaye ñëpp ñëpp nanguwaat. <laughs> mais Gora Sock bu mu yàq lamb ji na ñëw ñu bëre <laughs> way lamb ji fi ñu toll nii ñu liñ ci def dafa bëri. jàmm ak pexem yàlla ak dogalam mun naa dem ba dernier moment mu blessé. démb blessure bu amee munul bëre. Gora Sock démb rek ñu ngi koy seetaan ku ko seetaan démb xam ne dara dalu ko mu ngi dégagé forme di nekk ci jàmm. yow sa bopp buy metti sa lamb bi doo wax sa bopp tey xam nga tey mbër bu blessé yomb na xam mbër bu blessé lamb dafa am yoon. lamb du affaire u mbedd du affaire u taxawaalu lamb dafa am yoon lamb dafa am structure <laughs> boo boo blessé da ngay dem sa médecin mu xool la jox la këyit nga dem CNG jaar fi nga war a jaar mais lamb du da ngay blessé nii rek toog sa koñ naan dama blessé dama blessé <laughs> loolu lamb doxewul noonu de. jërëjëf maa lay jaajëfal bu baax. lan nga wax. ah man lu ma ciy wax bariwul. <coughs> xaw ma dafa blessé xaw ma blessul mais bu fekkee dafa blessé ñu ngi koy ñaanal yàlla mu tane jàmm mais dimanche daal lu mën a xew daal dimanche la ñoo ñu bëre rek. Euh, ah, bu dee daa blessé ba pare. bu dee dafa blessé si diggante bi bi ñu ko waxee léegi war na fee mën a wér kon dimanche war na mën a ñëw bëre si. kañ ngeen ko yëg à peu près. bi biñ ko yëgee yàgg na. ñun un mois. non matul un mois nag. matul un mois. vingt war na ëpp dix jours nag. waaw moom dara moom dara umbuñu ci moom jëmm ji moo yëg million 4 millions jox ñu ñu dugg regroupement un mois mu ngi nii 4 millions la teg ci table pour booy bi kon Gora Sock bu mu ñu tardel ñun nekkuñu fi pour moom dañu fee nekk pour beneen adversaire ñu ngi koy ñaanal mu dimanche jàmm mu ñëw ci jàmm ñu daan ko nank gunge ko mu dem ñibbi ndax fii ñoo moom Géejawaay ngi nii Estade baa ngi nii fii arène nationale. nañ fi. waaw ba jigadi wuñu ba tey jigadi wuñu kon ñu ngi fiy ñëwaat yàlla nañu yàlla suturaal mayaat ñu ndam lu leer nañ mais góor a soog arbitre bi wal moo ko fi baax kii ndaw la lijjantiwul dara ñoom seen tête de file boobu ñu yaakaar kii moo ko mën mën ko ko mën kii moo mën ñooñ waay nooto waay non amul nooto dañuy wax non mais Fils de Balla jugeegul ci góor a soog di mën keneen li ma de file bi ñu yaakaar kii moo ko mën kii ruqu Balla Gaye 2 la nekk di contact ak Balla Gaye de every day every time. façon xeetu bëre bu ne mi ngi ci bopp bi ñu lijjanti wuñ góor a mbër mu cooso tànk yi baaxul. ñoo ko ëppale. am nañ ci ragaluñ dara jël ko. ragaluñ dara. lenn rek laa fàtte sàkk lenn rek laa fàtte Balla Gaye 2 dañ koy masawu ci defet bi mu jugee moo guy gi ñu ngi leen di ñaanal nag ci kattanu Cheikh Fall ñu ñëwaat ak ay ndam yu rëy rëy ndax bala gay 2 bu dundee rek làmb dund ndax làmb ji boo gisee temps yi jafe-jafe yi mu nekkee yëpp moom daanoom gee waral de moo tax moom warul di daanu moom it na xam boppam xam ne dafa dacee war di nekk di def ay résultat làmb di mun di dox booy topp ci ginnaaw mën di doxal waaw lu dëkk ba. sant yàlla bu wér gaay man maay gànn bu ànd Fils de Balla waaw dérangé. Moussa Gningue la la gars yi. non gars yi Moussa Gningue Fils de Balla. non gars yi dañu may giree naan ma dara mooy loolu. dëgg la yaay Moussa Gningue Fils de Balla. non mais yàlla baax na quoi. yaay Moussa Gningue Fils de Balla. non sama xarit la moom mooy loolu. yaay Moussa Gningue yaay mystique saak bi lan moo ci ne. non ay bagages yi ndoxu naan yooyu rek. mooy loolu mais ginnaaw bi ñu sant yàlla jull si yoon sant si ñaar waajur dañuy sant waa Thiès Diouroup Morola Fouta Guinée Bissau sini sini kilifa yi sa man xaw ma ñun xamuñ caaxaan sa waay ñun lamb du caaxaan ñun caaxaanuñ dañuy lambu wax dëgg yàlla ku dégg sa baab billaahi dañuy lambu caaxaanuñu ñu gërëm ñu loxo kilifa yi ñu ngi leen ñaan bëgg yàlla ak yonent bi lépp lu ñu def nañ yokk seen loxo ñu ragaluñ dara victoire moo ñu ñor te lambu ji wallaahi azim ka caaxaanuñ ci barki Seydina Muhammad bis boobu bis ba xam ne caaxaanuñ lépp ma la a wax di nga ko gëm bu neexee yàlla non yàlla baax na Bawol yëpp a ngi ci ginnaaw yàlla baax na buntu Cambérène gépp a ngi ci yàlla baax na waa Parcelles gépp a ngi ci ginnaaw ñun ñu daal ñu ngi ñaan seen kilifa yi ñun sëñ Moussa Newel moo nekk seen ginnaaw ragaluñ dara billaa wala mais bis boo yàlla yàlla may ndam lu seddu guy bu seddu guy ba toog si kawam bu soobee yàlla jërëjëf siyaar naa ñu ngi dolli siyaar góor gi waaw bu fils de Balla waaw fils de da ñëpp bu fils de Balla fils de Balla waaw waaw a xam na ba eh, àdduna am solo te sunu waay la sunu rakk la sunu xarit la ba pare mu doon mbër boo xam ne ci géejawaay yaakaar naa espoir du géejawaay la quoi géejawaay am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax ndax fii mu jaar nii fii mu toll nii fi la Balla Gaye tolloon ba xëy nekk champion kon moom bu tolloo fii dañ koy ñaanal ba pare di ko jàppale mu ngi ci lim war a nekk mu ngi entraîné mu ngi xëy di dem din xam nga ngoon gi mu ngi dem contact te kenn seetaanuñu géejawaay Balla Gaye mu ngi jàppale bu baax a baax ak sunuy rakk ak sunuy ak sunuy xaritu mbër kon combat bi am nañ ci yaakaar bu baax a baax te gëm nañ ñu suñu borom dinañ ci may ndam. waaw bu baax a baax. Gora Sock men mais mais Gora Sock yow Gora Sock yow général moo ko gën a kii général moo gënoon daase. xamal xamal général rek waaye bul xam Gora Sock ndax ñamagoo. man góor moom balaa nga ko yëpp ñam ko. man Gora Sock dama ko seetaan yàgg na seetaan naa ko ay mbapat yu bari seetaan muy toj déedéet waaw léegi muy toj xam nga mbapat ak arène bokkul te Fils bala Balla boo xoolee xam ne kii mbër kaamil la macha allah jot na xale la am na doole mën na bëre li ñuy seet ci mbër lépp mu ngi ci dañuy ñaan yàlla rek cat seexluñu ba bisu combat ba góor a soog dina xam ne noonu mu toll noonu ñun tiitaluñu ci làmb général Malika moo ëppoon coow fuuf te bi ko Fils de Balla da ko faax mu wàcc ñu daw wër ko ndomba téye ko. waaw ñu ngi lay sant bu baax. waaw volcan bu Fils de Balla ak bu yan bu diis waaw doomu géejawaay bi. waaw doomu géejawaay. bu ndox bu ma wax loo waay. ci télé la ci sëñ bi boo ma waxee waxu Zoro Soog sama yaram day tàng. waaw Zoro Soog tapet la mënul fay ànd. bay fay volcan ànd àndu néegam mënu kaa fay. la fay mu fas yéene la wan lu diis lu metti nga ne Bamba bu dee ñëw na le vingt ñu ngi koy ñaanal yàlla na apt. bu dee na bu dañoo war a signé la am n'est-ce pas dañoo war a signé tey anamu. Gora Sock kañ la gëj a entraîné yéen du yéen yéen ba ngeen di def seen point de presse fal ngeen ñu fekk. école ba école fan ngeen ko fekk. këram lan këram. këram la lan la moom. mbër day def yëfi mbër na wàcc ci terrain bi def ni ñu def parce que ñun ay xale lañ apt nañu. est ay feem yu mu leen di tegal. ay feem la ñun ñu ngi toog ñun dëkkuñu fi. ay Sierra Leone lañ amuñu xel du ñun duñu ay doomu Sénégal ba ñu piège gis nga gis nga xam nga lan la lan laa gëm làmbu xale la bu ñu naxante daal liggéey na wax ne ay mbokkam damaa liggéey génn wane li mu liggéey comme ñun gis nga lii benn bis la que le gañ la naxante bi jaru ko loolu du xew fee. loolu saalam lay toog di ko def ak feneen ak feneen bu tawadee na ni sëñ bi damaa tawat. yéen kan moo la daa tawat ba ngeen naan Gora Sock ñun si dëkk bi lañ dëkk. góora moo ko baabul xayri la. luy moom xam na baabul xayri moom xamal nañu ni waaye sëñ bi ñëwal nga bëre dañ laa jox xaalis fay la wër nga di wax. avance fas yéene laa léegi yéen nga ko ñëwal. moom nag bëreewul ak Balla Gaye ak Sa fils de Balla lay bëreel te moo koy duma moo koy daan nee na moo mën Balla Gaye moo mën Sa na ñëw bëreeg seen poulet. Ah, yaa ngi ragal kii nangu woo ñëw di wax ay waxu Balla Gaye na ñëw bu ñëw dina ñu fek ñëwee dinañu fekk. fuñ taseeg moom dañuy xeex ak moom. dañ koy noox daf ñoo yàpp. dañ koy noox daf ñoo yàpp. ñu koy ñuus ay mag yu toll ñun bàyyi suñu lépp di pare suñu kombaa muy fen di dajale damaa désirir rek damaa nangam day ñëw wala fu ñu tase ñu noq ko looloo gën a dee xamee na ma bu ma jàppee na ko fajal boppam waaw looloo gën a dee daw ma xare góor xale ngay bëreel li ngay daw ci combat bi yëpp day am bu amul signature bi day am si làmb ji voilà. nee na wax ni Gora Sock dafa blessé wala da ngeen ci am preuve yu leer. Gora Sock waaw da ngay déglu Gora Sock lu ñu mënti wax si moom. bu fekkente ni nekkul woon dëgg sax moom dëggal na ko waaw. non ñun li ñu booleeg Jamaïcain moom moo ko booleeg Jamaïcain contrat la te ñun dañoo remplir suñuy contrat bi point de presse jotee def nañ ko dawuñu leen yéen ñëw ngeen ci écurie bi fekk ñu fa. signature bi mu jotee ñëw nañ te incha allahu taala bu dee day bëri bu làmb jotee dañuy ñëw bëre xeex nag xeex daan dañ koy duma. góor sax ñeme ngeen samp jaaga jàkkaarloo ak moom de xam nga ki ngay xeexal mooy ki ngay dóor muy fayu góor du fayu <laughs> mbawoor mbawoor la man doomu mbawoor laa. kan man kii mooy sama mbokk man moom mbokku mbër kii mooy sama mbokk mbawor laa dëkk mais kii mooy sama mbokk moom daw làqu la bu xewlee lay ñëw mbawor waaw te kii dina but góore il n'a rien compris waaw ñun duñu ay ngaaxa làmb yi fi jaar victoire yi muy jugee lépp garaawul quoi mais ñun duñ ay ngaaxa duñu mbër yooyu ñun xam nañ lépp xam nañ lépp mbawor nag ne ko bu lamb desee deux jours bu dee dugg na mbawor dina fa tase Fils de Balla dina ko wan Fils de Balla a moom Mbawor waaw parce que Gora Sock xew moo xewle moo koy yóbbu Mbawor ñu ngi nuyu tund Mbawor bi yëpp nag di bégee ñëpp ziar ñëpp di ko wax yàlla na yàlla defal jàmm mu ñëw si jàmm incha allah voilà Fils de